mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp tey nag ñu dellusiwaat ci 30 minutes chrono ci solution info TV di gërëm bu baax Abdoulaye Diallo euh, Abdou Top ak Fallou yi nekk ci régie bi di leen gërëm bu baax di ñaan jàmm suñu borom defal ñu ko bu baax a baax di nuyu ñëpp nag tey jii di doore. collectif des victimes de Macky Sall ñoom Boubacar Seye Horizon Sans Frontières taxawal ko mu doon lu am solo di ci félicité Boubacar Seye ndaxte victime la ci Macky Sall ndaxte Boubacar li mu fi kaso ci mbiri immigration clandestine ci laal gi mu laaj gi mu laajoon rek ci ay question ci ne alal ji ñuy dugal ci immigration fan la jëm ak fan la ne laaj rek la def ba mu duggee kasoog léegi jële ci jàngoro ci koo xam dafa liggéeyal Sénégal fu ne dellu ci réew mi di taxaw les migrants expertise ñu waroon ko jariñoo mais defuñu ko tëj ko ci kaso moom victime la comme ni Sonko ak yi nekkoon victimu président Macky Sall ndax tëj na leen ci kaso lu ne ñu teg leen ko seen njaboot tuuma bu ñaaw bu ne ñu teg leen ko jël junni ak lu teg ci ay gone dugal leen ci kaso bi ci xayma yi Amnesty International wax soixantaine de morts maanaam lu toll ci juróom-benn fukki ci doomi aadama ñàkk seen bakkan te loolu mi ngi am diggante mars 2021 ak tey ñu ne lu toll ci 650 ci ay victimes am nañ ci d'après Amnesty léegi nag am na ñu ne ëpp na ko mais les titres officiels yi Amnesty joxe comme ñoom organisation droit de l'homme lan dañuy jàpp ci loolu am na ñu ne ay 84 morts am na ñu ne lii ak lee mais mooy chiffre yoo xam ne tey jii collectif bi ginnaaw bi ñuy ganoo ak taskatu xabaar yi génnee nañ ko mu am ay dégâts collatéraux maanaam ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen alal ñi ñàkk ci seen njaboot ñi ñàkk ci seen xel ñi ñàkk ci seen cër ñii dem ba sax laa la wax lay tax sax sutura ci ñoom xaaweeku na ndaxte am na ñoo xam ne lay jigéen ci ñoom dañ na mais am na loo xam ne lay góor ci ñoom dañ na ñoo ay victime mu président Macky Sall la lu tax collectif bi ma ni am na solo parce que li kenn dul nangu mooy li fi xew xew fi ñëpp fekke ko ñu dund ko Sénégal dund moment yi gën a metti ci taarix xam ci nguuru Macky Sall diggante mars 2021 ak 2024 bi ci mujj rek mooy bi mag Sall taxawee ci ay tappale moom ak ay nitam ne dañuy pousse élection yi parce que élection yi dugal nañ ay recours ak waa PDS tuumal nañ conseil constitutionnel bu réew mi taxawul woon conseil constitutionnel taxaw heure bii jomaay ak Sonko duñ fi ne kon Sonko jomaay fi ne tegul teguñu fa seen bopp ndaxte bi ñuy xeex pour ñu amal élection yi ñoom ñu ngi ci kaso bi ñetti nit ñàkk seen bakkan di ay ndaw amoon na ci étudiant yooyu yëpp doonul luñ war a fàtte. justice bi ñu yàq deram parce que yenn ci juge yi taxawoon ne dañuy àtte dëgg ku ci mel ne Sabassy Faye Ousmane Racine ak ñeneen dem nañ sax ba di leen jéem a toroxal ndaxte kii di Sabassy Faye yóbbu woon nañ ko yónnee woon nañ ko igaz ñoom ma jëmbal jaañi di lappi lappi tey lu nu yekkul justice bi dañ ko fàtte bépp justice bi mbirum may Mame Mbaye Niang bi ko njëkk a àtte mam ma jàmbal dafa bind ci moom dafa bind ci moom mu yàq ko lu ne saba si fay lu ne mu yàq ko ko ba ci tëli ko am na décision de justice ñu tëj ko trois mois ferme ba tey kenn exécuté wu ko ma jamal jaan mii kon tey bu ñuy wax naan benn Alassane Fall nekk ndayu Pastef dugg kaso ndax bëgg Ousmane Sonko défendre le projet moom Alassane Fall ñu ne jàpp nañ ko parce que dafa ñàkkee teggin magistrat yi mu nangu ni moom dafa juum mu taxaw jéggalu bi mu jéggaloo tey jii ñu téye ko ñu bari jàpp ni téye bi ko téye lu normal la ndax yoon mooy def liggéeyam bëgg ko yemale ak ay baajaxate jamono ji ñoom baajaxate di ànd ak Macky Sall di def lu leen neex di wax li leen neex Alassane Fall mi ngi ci kaso bi maanaam Alassane Fall. war a dund coona pour xeexal Ousmane Sonko Ousmane Sonko am ndam Alassane Fall wala continuer di dundu coona ñu bëgg ko yemale waa Bah Diakhaté parce que nee nañ léegi justice bi dafa yemale nit ñi benn lañu léegi même nit sonk yi bu ñu defee lii wala lee ne Alassane dafa taxaw jégalu ci kanam ñëpp te Alassane dafa am circonstance atténuante li mu wax kenn àndu ci mooy dafa dugg kaso mu am ay dégâts collatéraux nee nan ñàkk na ci njabootam soxnaam maanaam am na ci daal ay mbir yu ñu ci wax. loo xam ne dund na ko mais kooku war nañ ko yamal ak Bah Diakhaté mi nekkoon di saaga nit ñi fii di jiñ ay Sonko góor jigéen ak lu ne plainte bu ne di ko fekk Alassane Fall bu juum benn yoon benn juum ne damaa juum mu wax ne damaa juum nangu ko pourtant jamono jim laan damaa juum ñoom Bah Diakhaté fanu tegoon seen tànk lan ko teg dëgër bopp loolu am sañ-sañ loolu am fit loolu léegi nag ñu war a jël ay xale yi doon xeex projet bi war leen a tëj ci kaso parce léegi justice bi dañ yemale pour neexalee ko waa APR yi Sonko ak Diomaye bu dee ni danoo nekk ay guerrier ba falu bëgg a falu ba pare ragal nan ñu ko wax bu dee seen booy leen bëgg a yemale booy APR ban na justice bi léegi dafa normal quoi bëgg ko équilibrisme yooyu buñ dugg ci yooyu rupture bii ñuy wax mënoo def rupture ci lépp de ji nga lee booy les jeunes patriotes là rawatina ñi nekkoon ci kaso bi ñàkk seen lépp tey jii bu leen indemniser wul indemniser ñi ci feebar ñu faj leen ñi ci mën a doon ay responsable parce que tamit booy parmi ñoom am na tamit ay frustré il faut se dire la vérité am na ñoo xam ne nanguwun wax parce que cofeel bi ñu am ci Sonko mais booy waxtaan ak ñeen am na ay frustré parce que ñi ngi nommé ay nit yoo xam ne bi combat bi amee ci Pastef kenn gisuleen leen kenn déggu coolee fi ne rek ñu la ay mafia 1 ak 2 ak jëm 3 kenn déggu leen te tey jii bi ñuy nommé ci direction yi ñoom la nommé booy nekkoon ci combat bi ñu leen jiñ ay cocktail molotov mën leen a jiñ ay terrorisme mën leen a jiñ lu ne ces jeunes là ba tey jii am na ci ñoo xam ne ñi ngi dund seen coono kon indemnisation yi ñu waxoon pour jàppale leen taxawu leen ci wàllu xaalis ñu recensé leen defal leen ko dafa war a gaaw jamono ji leen war a neexal nag ñu leen jël di leen dugal ci kaso bi parce que nee na léegi danoo bëgg a woon sénégalais yi ni justice bi nekk fi pour Sonko nekk fi pour Jomaay piège boobu war ñu fi daanu. parce que nag booy bu ñu ba gëm ni nguru Jomaay ji waroon na nekk àjjana ci ñoom dafa commencé di nekk ñu ñoom safara booy mën nan mel nan meloon ah? parce que nag danoo jàpp ni bi Sonko ak falo ñoom tam danoo war a falu même buñ falu nag ñu am jàmm ak salaam parce que tey jii xamuñ lan war a teg loxo jàpp ñi fob alal réew mi rey doomu jàmbur yi ah doomu jàmbur yi nekk woon fi arrogance ay Ahmed Suzanne Camara fi nan rey Sonko ba léegi ñu ngi fi di doxi seen soxla. Diomaye ab post la bind ñu fekk ci bërëb liggéeykaayam toroxal ko dugal ci kaso mu génn nekk président bi mu nekkee ci kaso dafa am ay xale yu doon xeex pour mu génn projet bi bu demee ba toll ci niveau bi daf ci am benn jamono bu xale yi taxul woon du egg fii xale yi buñ gore di woon du egg fii parce que nag bu buñ nekkee ci kaso bi mënoon nañ jaay seen leer jëndee ko lëndëm wala ñu def ay dénonciation parce que am na ci ñenn ci ñoom ñoo xam ne bi leen jàppee li leen gën a sonal mooy taxalal Sonko taxalal lii taxalal lii la leen booy di bañ ñu leen di torturer am na si am na fi lu ne am na fi mais nag warul tax ñu def table rase ci lépp dem ba gars yi Macky Sall yi fii bëgg fi nekk di gunnaandaat ak du noos li ñoom Boubacar Seye wax dëgg la collectif des victimes de Macky Macky Sall munul. nekk ancien président xëy génn réew mii dem yoonam signé fi ay décret yu baaxul ruube réew mi jaxase réew mi dem bëgg a nekk ci jàmmam bëgg a bàyyi sénégalais yi ci fitna booy patriote yi nan leen jàmmal bu ñu defee erreur nan leen baal parce que nag booy fi ñu jugee moo metti ñu bëgg leen a yamale ak ay baajaxate naan yoonay def liggéeyam yamale dafa teel. Bah Diakhaté li mu def booy defuñu ko li mu wax booy waxuñu ko des fois la li Azoura Fall wax mais Azoura la lu mu wax mais Azoura Azoura génn prison mais handicapé ñàkk léppam borom gémmi gi naaj di wax jàmm Azoura c'est que la vécu li mu dund mënul génn ba pare di jàkkaarloo waa APR di leen xool ci bët di leen respecté wala mu leen di jox cër. ñi ko tegoon loolu mënatu leen jox cër parce que il faut du temps il faut que ñu dimbali ko jàppale ko ba leen doon war a jàpp Azura bu kenn jàpp Azura lu tax ñooy jàpp Azura li ñu ko jàpp doy na yàq léppam góor bu góor physique am rek la am ñu bëgg leen a yemal ay baajaxare parce que nee jàpp na baajaxare ana benn jeune patriote bu nekk fee wala fii kenn d'accordul ci saaga kenn d'accordul ci xas parce que man mii di wax xasuma kenn saaguma kenn lu ma def du ma ko sant kenn yaa ngi gis mais il faut que Sonko ak Diomaye ak seen régime bu bees bi lu def nànk defu nànk par rapport ak jeunes yi parce que nag projet bi ñi fi gën a sonn jeunes yi bariwul de ji nga ces jeunes la ou ils ont vécu l'enfer am na ci ñoo ba ñoo xam ne ba tey ñu ngi traîner ay séquelles am na ci ñoo xam ne place yu ñu doon liggéeyee ba tey ñu ngi sommet démb dalal naa ci kenn am na man ñu ma ciy waxal au téléphone nekkoon ay commercant ñëw fekk ñu tëj place ba ñu yor jabar yor doom ba tey ji ñu ngi souffrir dans la dignité kon ñooñu fekk lañ fa ñu ne parce que def nañ benn vidéo wax nañ seen xalaat ñu war leen jàpp warul ne nan leen rétablir comme ni def ak le professeur Khadim Bamba Diagne woo leen defal leen ay conférence waxtaan ak ñoom dalal seen xel wax leen ni nag lii mooy la réalité du pouvoir pouvoir lii la il faut du temps au temps loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu dee am na ñun war a jàpp wala ñun war a woo mooy gars yi Macky Sall yi ñu ni la benn tey ñu ni la convoqué na Cheikh Bara Ndiaye ñu ne parce que kon lu tax convoqué ñu ne Thérèse fay moo ko plainte ñu ne la parce que Cheikh Bara Ndiaye da ko dénoncé pour quelqu'un boo xam ne il a tout perdu pour projet ñàkk na léppam pour projet bi alalam daan jël tibb ci kontam di invité nit ñi keroog wax naa ak sama chronique bu mujj Njaga Seck mii ñu Bah Diakhaté daan tuumal lu Cheikh Bara mos a organisé Sonko yebal na ko fa mu ñëw. man mi di wax du ma fanaan fu dul sama kër ci àddina bu ma tukkee sax damay gaaw ñibbi ci fanaan sama kër mais bis bi ma fanaan naa àll parce que Cheikh Bara moo wootee ñaan pour Sonko ay Njaga Seck teew fa ñu bu dégg ba 6 heures du matin. trois cent personnes biir këram man waxuma ay chroniques yi wala lii damay wax yi nekk ci suuf yu gars yi xamul woon fépp mën a weexal li may wax Matar Sène min fal démb fal nañ ko dem Matar seen xam na ci dara njabootu Sonko xam nañ ci dara lu ne ñu def ko bàyyiwun dara ci wàllu ñaan loo xam ne mën nga ko wax loo ko waxul victime ci ñàkk sa alal ñàkk sa oto ñàkk sa liberté dem ba sa biir famille dem ba sax yenn ci ñi nga bokkal sax ngëm-ngëm ci Touba mere la ndax Sonko Cheikh Bara dund na loolu campagne électorale yamul rek ci toog ci média di wax il a tout suspendu pour être sur le terrain di politique fu ne mu dem fa fi leen ko naroon na rey daaru mussi bi muy joteeg ñoom Modou Diagne Fada Cheikh Bara naroon na ñàkk bakkanam ci campagne bi yor sécurité boppam du sécurité bu ko Pastef jox ak yeneen ak yeneen tey ñu ne jote nag kii nu mu tudd Thérèse fay ñu ne nag convoqué nañ Cheikh Bara léegi et eh, Thérèse Faye ki yarul woon dara xëy ñu ne dugg na ci nguur am na lii ñu ne lii fa la ko jëlee war ñu poser des questions sur lan moo xew ci koo xam ne moom bi muy dugg ci nguur étudiante simple la JDFICAS tupi JDF FONGIP FONGIP nekk banque boo xam ne dafa bari alal ju dul jeex ñu xëy xëy ni kii am na alal est-ce que waruñu laaj lan la pour pourtant bi ñuy def traque des biens mal acquis enrichissement illicite ci jamonoy Macky Sall di ko ne Karim Wade Karim Wade kenn waxul ni rapport da ko jàppale wala dara dana alal ji mu yor est-ce que war na ko am pour pourtant Karim tëdd na ci ñetti at génn réew mi dem yoonam. li valable woon pour Karim est-ce que valable pour ñoom Thérèse Faye ñu laaj ñoom fa la alal ji ñu yor fa lañ ko jëlee ah léegi jamono jooju ñu waroon laaj Thérèse kañ nga fi dugg ci nguur ak lii ak lee ñu ne non Cheikh Bara mi ko dénoncé lan woo quoi léegi Thérèse Faye tëdd këram quoi ànd ak ay maître El Hadj ak am Mame Mbaye Niang kenn xam léegi lan moo xew bu dee ñun daa am lu xew ci réew mi te yëguñu ko nan ñu ko wax. maanaam sonk ak Jomaay bi ñuy génn Macky di dem da daa am yu xew ak ni Macky demee nan ñu ko wax ñun ñun ñu xam parce que nag bu dee daa am lu xew nan ñu ko wax ñu xam ñun ñu maandu bàyyi gars yi Macky Sall si seen jàmm ñu yor seen i milliards di lekk ba suur di naan ba mànd yor seeni i di song nguur gi bu boobaa ñun ñu maandu xam ne naka de bokk ci coow li xam lu ko waral moo ko gën parce que ñun nag doonoo jàppoon ni. li xew ci xaalisu Covid 19 bi ak junni milliards lañ cay wax heure bi waroon na tàmbalee leer ñun lool lañ gëm man loolu laa gëm waaw mais tey jii ni nguur gi amee fit maanaam nguuru Macky Sall ni amee fit seen gars yi man dégg naa ab kii nu mu tudd Alioune Ndoye kii bi Dakar Plateau bi. mu toog ci may mën a ndur fay mun a ñii deux ans laa leen may deux ans lan lay sous-entendre dem ba ñoom seeni presse yoo xam ne mën nañ wax ni ay presse politique lan dem ba mën a sañ taxaw di wax loo xam ne mën na salfaañe réew mi jël ab général nekk maanaam bind na day rebellé wu contre le président de la république wala le premier ministre ci décision bu ñu jël décret présidentiel bu dee ni Cheikh Bara dafa jotee kan la joteel Thérèse Faye mais am na ñoo xam ne réew mi leen tooñ réew mi parce que li ñu def mën na salfaañi kaaraangeeg réew mi ñu woo leen presse bi jugee nappe nappee tuuti ñun la noo bàyyi nañ leen bi leen di bàyyi waa toppeetul leen dara dem nan te ñooñu tey buñ sañoon projet bi du taxaw ñu ngi seen jàmm kenn ñemewu leen jàpp kenn ñemewu leen park yàlla y a la léegi yow ñu leen doon xeexal démb. nga mën a permettre say noonu démb ñu leen di woo ñu naan leen non ñu ngi leen di auditionné ñu ngi leen li ñu ne non parce que léegi danoo bëgg a affaire naa fekk léegi yoonoo yem ci réew bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër yoon du mës a yem. procureur ba daan seetaan baa jaxate mi saaga Sonko jomaay boobu yi moo fi ne procureur boobu moo jàpp baa lan mooy lan moo changé. même procureur bi doon seetaan Bah Diakhaté mi def lu ko neex jàpp ko tey ji moo ko jàpp fii ñin war a convoqué du ay Cheikh Bara de du ay alasan Fall de du ay Azoura de gars yi bi ñuy rey seen bopp ci projet bi du pour lii de ñii dañ ci daj lu ne ñàkk ci lu ne heure bi ay nomination lañ doon xaar ci ñoom Cheikh Bara fal nañ ko lii loolu lañuy xaar ñoon dëgg nin fale dàmbooj fale ko ñoo xam ne tey jii musuñu génn xeex wala ñu génn wax tey jii wax yomb na yomb na bu ñu yëngal mu naan ay yoon noo yoon a yam léegi dëkk bi léegi ñëpp benn lan logique boobu bis bu ñu ci booy bàlleen ñiñ war a jàpp ñi ngi fi ñi sàcc alal réew mi rey doomu jàmbur yi ñu gis benn Jibril Gueye Ndiaye ak li Antoine teg Pastef yëpp ci àddina maanaam li xewoon ci yaraax nii xoolal ñu ne noo ay attentat terroriste lu ne mu jiñ leen ko fu ne mu taxaw fa chargé leen tey Antoine bu pexem jiboon Pastef tas na sonk ak Jomaay ñi ngi ci kaso bi ñoom Cheikh Bara yëpp kenn du génn ñu naan ay mbokk ay sagari njaam sagari njaam ji lan xanaatee tey la sagari njaam Antoine daa xamoon loolu bi ñuy jàpp Sonko bi ñu jàpp Jomaay bi ñuy jàpp Cheikh Bara bi ñuy jàpp keneen ak keneen tey nga mën a lëngoog moom saafoonteeg moom mën a jël benn Cheikh Bara ñu ne ñu ngi koy convoqué benn Alassane Fall ñu ngi koy convoqué Antoine yamul ci jàpp Ousmane tas Pastef ñëw xalal lépp lu doon pan mandarga ci Pastef dem na ba bracelet Pastef yi ku ko mës a takk ci réew mi ñu jàpp la da ngay dox takk dara na yee eh, diwkaay bracelet bi bracelet jàpp nit na parce que bracelet jàpp nit parce que dafa reetaan papito kara ñu ngi koy ñaanal waruñu ko fàtte di ko rëbb di ko rëbb ba mu jël gaal yi pour sa dignité ngorom un jeune talentueux tey dem na teguñu ci ay weer bàyyam dem ces jeune là il faut les protéger bu leen mënul fal parce que seen njàng peut-être seen lii wala lee mais na leen protéger jàppale leen collecte comité bi nu waxoon parce que dañ koy def pour dàmp booy indemniser leen nañ ci taxaw ku ne lii sa wàllu ci projet bi ñu jox la ko Doro Gueye affaire privée la le gars là Adama Faye affaire privée la ana Mansour Faye non non Adama Faye <laughs> mooy Sénégal ñii nanu yëpp ana Antoine mu ngay dem di lëngoo di saafoonte ak ay mbokkam léegi dañuy bàyyi noonu Antoine quoi ah ana ma Samba ak ma Demba ana Macky Sall ana keneen ak keneen tey ji ñooñu moment bi ñuy nekk di saafonte di lekk seen yu neex du maanaam man j'ai l'impression que gars yi Macky Sall ba tey ñu ngi ci nguur man loolu laa gëm parce que nit amee fit nit ñemee ku ñeme dañ laa dee lan moo xew ñun lu ñu waxul ba gars yi am fit ba yor seeni presse mën a menacer ku leen neex mën a dal ci ku leen neex def li leen neex te ñu ngi gën a am fit de ñu ne non na leen muñal ba après tabaski rapport yi léegi dun muñal benn Cheikh Bara mi daj ci ñoom lu ne dun muñal benn Alassane Fall mi daj ci ñoom lu ne duñ muñal benn Azoura mi daj ci ñoom lu ne léegi daal mun na nañu muñal ñee quoi ñu ne la temps de la justice jarul yàkkamti rapport yi mais ñii moom dafa war a gaaw quoi du nii de nga dem benn Kër Massar le bi Bilal jaata mën a taxaw mu ne non day defar Kër Massar c'est bien ndax gis naa ñuy defar mais ak xel du xool affaire Barthélémy Dias politique gu bandi bandilu dafa xew yi affaire Bart Barthélémy Dias yooyu doxul ngan ngandul lu yanu ay vigile maanaam ay kii nu mu tudd les gros bras mel na montagne u glace boo duggee marché Kër Massar gars yi non non loolu c'est pas booy da ngay wax ak ñoom ci xel wax ak ñoom xam-xam du affaire doole. affaire doole booy yooyu tey ngay mën a faagaagal dem na ci mu ne non booy dëkk Kër masaar El alilum Ali Kër masaar lay jaayee Saalum Saalum la. est ce que El Hadj Alioum Loum dugg kaso def un an ci kaso bi est ce que kooku da naan bokkul Kër Massar parce que boo xoolee carte d'identité doo ci gis Kër Massar nga ni non les les marchands de Kër masaar dinaa xool nan lay indemniser ñeneen ñi ne ñu fi di ñu fi dëkkul ñooñu te nekk ca marché ba ba xeex bi jotee ñoo ko doon xeex Kër Massar danoo sonn ci xeexu Pastef bu la neexee yow maire bi nga ni non man damay def sama liggéey benn mandat bu mu ko amee sax doy na. bu ma falaatul soxlawoo les militants de Kër Massar soxlawoo la base à Kër Massar mais Kër Massar Sonko soxla na leen le vieux Ibrahima Seye dafa politique ba daanu dee Mariama Sagna politique ba daanu dee Kër Massar mu ëppoon ay prisonniers bu ma juumul à part Touba Touba prisonnier politique Sénégal ces jeune la tey jii bu leen mënul ñëw dimbali yëkkati ci xaalis indemniser leen damp leen parce qu'ils ont tout perdu bu ñu xëy am seen dignité agressé wuñu xeexuñu defuñu dara dem ci marché bi di am lu ñuy ut non ñooñu il faut les protéger il faut les parler même bu dee dangay liggéey il faut lee respecter mais jël ay punkal fu leen fekk piir leen di leen duma lu ne ñu xañ leen ko man ànduma ku nekk ci voie publique par que Kër Massar li fa nekkoon anarchie la du dëgg tali kenn du fa lal marché daa am fu ñu war a yem ñu jël dëkk def ko marché ak garage ba kenn amatul fu jaar. mais damay bañ politique gu bànn gis seen Khalifa Sall fi mu mujjoon ak booy tey ji lépp lu ko metti ci politique foofu la politique gu bandi bandilu ak politique gu Barthélemy Dias yooyu doxul il faut di Sonko ji nga Sonko am na xët-xët mais il est intelligent xam na ni muy gérer booy yi xam na ni muy gérer booy yi ji nga ces jeunes là bu leen kenn xeeb il faut ñu rendre leen un hommage mérité pourquoi amay wax li li Macky Abdoulaye Wade daan woon Ablaye Wade def na fi 2000 ba 2007 bàyyi leen góor gu ma liggéey lay dégg mais après 2007 ay nit ñoo ko isole teg ko ne ay nitu démbam yi ko daan xeexal gisatuñ ko déggatuñ ko du jikko Ablaye Wade de il est bon mais ay nit ñooy def de telle sorte que ngay gën a sori la réalité te réalité boo ko soree rek bu nga am mbetteel loolu il foog ñu bàyyi ci xel. te pour man ak opposition bii ma gis ak ni presse bi taxawoo def defatul ñenn ci ñoom defatul liggéey presse mais nekk ay opposant tey jii la Pastef gën a soxla ay nitam surtout ci plateau yi parce que am na ñoo xam ne bi leen nommé ba tey danoo jàpp ne waratuñ toog ci plateau di wax la nature a horreur du vide opposition bés bis bu ñu defaree ba jël defaroo ba jël plateau yi ba gis yenn failles yi commencé di ko démontrer parce que am na lu ci commencé di réussir parce que ci côté manipulation dafa yomb tey ña ngay dégg ku ne la tabaski bi xar amul Ismaïla Sow génn na la xar am na waaye nit ñee ko jënd siwul ñu ne dafa seet c'est de la manipulation li daan jar prix bi prix bi lay jar léegi nag loolu bu dee daa am benn ñu am taxawaay di manipuler te amoo ñu la défendre di leeral sur les plateau di leeral sur les plateau day day problème te tey ji ñëpp déserté na les plateaux Cheikh Bara Ndiaye moo des ci yi ñëpp daw nan nguuru ji mu des ci plateau yi moom jeudi bu ne mu ñëw toog jàkkaarloog Sanjoogu lu gaay lal mu lalli Cheikh Bara ku ko am jël mais ku ko ñàkk da koy wuti Macky sàll bu amoon ku mel na Cheikh Bara du daanu du daanu def na lu ne pour la récupérer mu toog fi mu toog dawul ci ginnaaw nomination dawul ci ginnaaw dara mais cëram dañ ko war a jox waaw tey jii convoqué nañ Thérèse moo gënoon a jekk convoqué nañ Cheikh Bara Cheikh Bara amalul dara Sénégal lekkalul ñaar dërëmu Sénégal triandewul fenn Sénégal convoqué nañ ñi lekk xaalisu Covid bi moo gënoon jekk convoqué ñi rey xale jàmb doomu jàmbur yàq seen dund ñoo gënoon a jekk ñi ñu dénkoon yenn ministères yi convoqué nañ leen auditu cour de comptes IGE ak rappelé rapport de OFNAC mu gënoon a jekk mu gënoon a jekk maanaam convoqué nañ Cheikh Bara jekkul maanaam dafa jekkul dafa jekkul te dafa rafetul ci deru nguur gi loolu nag sama position la billaahi waxuñu ci téléphone parce que bëgguma ci woon wax nag moom bu ma ko tàggu woon dana am bu ci dugg mais man je prends mes responsabilités lu ma bëgg wax dama koy wax man politique gu ma 2007 ba léegi maa ngi def métier bii waaw man ku ma xam ni nga mën a xam j'ai le j'ai le courage de mes idées lu ma gëm laay wax bu dee nag am na tooñ wala njuumte maa ngi jéggalu waaw parce que nit mun nga wax nga juum loolu affaire nit la mais maa ngi jéggalu mais il faut que ñu xam ne projet bi daa am ñu ci sonnoon daa am ñu ci sonnoon ñu bàyyi leen xel. waaw ñu ñàkk ci lu bari yooyu fokk ñu bàyyi ci xel gën leen a gëddal gën leen jox cër boo demee ci dialogue ba gars yi i Sall ñoo fa gën a fes ñoo la ay Bamba Kassé rapporteur <laughs> ñooñu ce pays là jigéen ñi nekkoon ci naaj wi bis bu ñu toogee ci ker gi ñoo war a cëru mais bis bu ñu fi nekkee bëgg a def équilibrisme bëgg a yamale ñëpp am ñu gedd seen cër kon di gërëm Ablaye Diallo <coughs> di gërëm bu baax Abdou Top di gërëm bu baax euh, Fallou waa solution yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm mbokk yi kon ba beneen yoon incha allah.